les auditions. Il me fallait, il fallait euh, amener une convocation pour l'honorable député Ousmane Sonko. J'ai pris la convocation, j'ai pris mon véhicule. Je l'ai écrit d'abord un SMS. N'est que bonjour, honorable député Ousmane Sonko. Je suis le capitaine Touré, officier adjoint à la section de recherche. On a reçu une plainte contre vous et on m'a chargé de vous joindre pour les besoins d'une convocation. il me répond pour me dire que j'habite à la cité Gorgui je me rappelle pas cité Kor Gorgui waaw mu jox ma adresse bi le lendemain je l'avais dit que je viendrais à 10 heures à 10 heures je suis pas venu il m'a réécrit un message pour me dire monsieur Touré à quelle heure je dis que je suis en route j'ai pris mon véhicule je suis parti à la cité Kor je lui remis la convocation qu'il a déchargée et je suis revenu à la section de recherche quand je suis revenu c'était le procureur a demandé à ce que ñu arrêté ndaw si ñu arrêté ma ne ko ah commandant la femme là elle a un enfant prématuré de sept mois kooku mënul dem de mu ne ma ah j'ai informé la procureur mais bu ma ko informé xam nga lan la ma wax def ma ne commandant yow sa xolu yurmande bi moo la sonnal bi bu fekkee ne damay fen yal na ma yàlla toroxal procureur bi ne ko aussi xelu yërmande bu mu taw il faut plutôt faire appliquer les principes de gendarme waaw comme prévu le commandant m'a dit exécute les ordres je suis très loyal à mon moom mi xam na ko je suis parti j'ai exécuté je suis j'ai dit à la dame je l'ai même pas informé ah ma ko nee kaay bu mu ñëwee sama bureau je l'ai pas dit commandant bi nee na jàpp la dama ko nee vous allez être en garde à donc comme on a remis une convocation au député Ousmane Et pour, pour accéder à lui, c'est-à-dire, c'est pour vous expliquer, je ne parle pas de complot, je n'ai rien dit. On, a demandé d'arrêter la dame. Et quand on a demandé, quand on a expliqué au procureur ce qui s'est passé, il a dit au commandant ce que je viens de dire. J'ai convoqué la dame, elle est venue, je l'ai notifié la garde vue. Mais avant la notification de la garde à vue, fekkoon na ne ndaw si la l'avais écouté quatre fois mais en titre de témoin parce que je n'ai jamais imaginé que mais toutefois je l'avais notifié tous ses droits concernant cette affaire boobu laa ko wax ne madame moi j'applique les ordres de mes chefs mais je vais vous appeler un avocat te avocat bu ma lay woowoon c'est pas un avocat boo xam ne mbirum xaalis lay toppee bu fekkee ne c'est le gars que j'ai connu à la fac ki se battait pour des principes humains humains xam naa ne kii il va faire son possible pour que la vérité se manifeste pour mu jàppale la vous avez compris C'est ainsi que j'ai appelé Maître Bassirou Baldé qui est sorti une fois en parlant. J'ai appelé le maître, il est venu dans mon bureau, je l'ai expliqué, sans pour autant aller dans les détails de l'enquête. Il fait son travail, je fais mon travail. Donc après la notification. C'est un prématuré. C'est un prématuré. donc allons-y. Maintenant, dès qu'on est arrivé à l'hôpital, j'ai dit à l'avocat que cette dame, si elle se sépare de son enfant, l'enfant va décéder. Pour moi, c'est ça la justice, quoi. Finalement, l'avocat est parti le lendemain pour dénoncer. Et la presse a mis la pression sur l'État. Et les gens ont lâché. Parce que nga inscrire en même temps. c'est-à-dire wax noonu tam xaw na tiital ni ngi def benn capitaine. waaw. quand vous cherchez man je suis militaire comme je vous dis dama am stratégie gis nga état quand vous voulez un résultat il faut plus grand. delluwaat euh, ginnaaw tuuti balaa ngay wàcc ci. waaw. Adji Sarr bi mu lay wax naan la. Hmm. sama patron ba du ko yëg. waaw Sidi Mouhamed Mbaye hmm. ma ci waaw léegi seen ginnaaw audition ba ñu ci yow naan la ñun ci am problème. waaw. maanaam kon daal dafa nekk nit ñoo xam ne dañ leen doon utiliser lañ xanaa. en en tout cas moi c'est la première fois que ñu violé nit mu ñëw sama bureau porte plainte et après muy dellu. y a eu beaucoup de personnes gis nga explique ce qui s'est passé gis nga bu ma demee ba remettre sama démission donc j'ai besoin d'expliquer que nit ñi yegg après je vais me rendre à mes autorités militaires ils faire. du yow après dañ lay jàpp. je vais non gis nga yaakaar naa ne man bu ñu may jàpp c'est-à-dire ñu jàpp ma gis nga formation bu ma def moo gën a métti ay jàpp tous les responsables dans cette affaire. une enquête doit être ouverte ñooñu ñëpp ñu jàpp leen le procureur. vraiment yaakaar naa ne bu ñu la waxee loolu war nga nangu mais nga wax loolu ba ñu dem hôpital on a créé scandale là-bas hôpital bi je tiens à témoigner tout ba minuit foo xam ne des enfants sont en réanimation là-bas man wax naa li may wax c'est-à-dire bu ñu fekkee ne que man li ma wax ni ça vaut la que le procureur de la République démissionne ou que le ministre de la Justice démissionne. Non, de loolu rek c'est parce que comme je vous dis mes principes ont été bafoués. ne ko deful parce que le procureur nous a mis une telle pression qu'on pouvait pas terminer. ça je non a des de la gendarmerie en fait gis la gendarmerie dans cette affaire est restée debout. ne nii ñu leen di surveiller. waaw maanaam Sonko dafa am sax ay militants. waaw dans l'armée. demee këram que j'ai eu un contact avec Sonko wala avec une personne autre que peut-être il y a certains avocats moi je suis officier de gendarmerie.

tweeté tous ceux mu ne ma ah mais mon capitaine ah. bu ñun ñi xamee fi ngay dem. doo fa yegg moo tax tu es obligé. damay dem après SR c' est à dire moi pense que c' est xamee ne man dinaa wax dara mun nañ ma rey donc léegi ma wax benn yoon di ma xam. rien ne vaut d'aller affronter la mort. Le général de Gaulle, quand il appelait le Français à résister, il était à Londres. il n'est pas venu se battre pourtant il est arrivé à convaincre les Français donc bu fekkee ne yaakaar nga ne yow li ngay wax mun na changer dara jarul ngay dem xeex toogal rek nga wax ko bu fekkee changer na baax na bu fekkee ñii ñi gëmuñu la nga dem toog man nuyu sama maam te di ko remercier di ko gërëm lu bëri c'est-à-dire elle m'a des principes yoo xam ne mosul bëgg ma wàcc la vérité cest li may def Euh, si li ma yare si loolu laa nekkee donc je ne suis que mon destin cest gis nga PV e affaire bi c'est c'était c'était mon mon destin c'est-à-dire on était trois capitaines à la SR commandant bi woo ma ne ma demal def ko donc bu fekkee dëgg dafa war a feeñ da ngay wax expliquer lu xew bu ma bu ma reconvoqué demee wala nit interview moom feneen j'essaierai de dire la même chose je suis vraiment très honoré d'avoir servie pour ce pays